alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala alfaatihi alxaatimi sayyidina muhammadin naasiri alhaadi ila siraatillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew fu ngeen mun di nekk rek maa ngi leen di boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole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 fas yéene sof li ñu sosoon ak yéen ci seen xadiisu sabaax bi ngeen baaxoo am rek bët bu set ci waxtu wi ci rajo télévision bu wal fajri fàttaliku suñu jàmbaar ja doon jàmbaar ci lislaam doon jàmbaar ci mbooleem turuq suufiye yi doon jàmbaar ci réew mi doon jàmbaar ci pénc mi di a sidi amin ñas yal na yàlla beesal yërmandeem taw taw yërmande ak taw taw ngërmande ca raw doom bu tedd be mu tëdd ca lew na ña seen feggoog magam ju baax ja nga xam ne moo ko dalaloon ba siin di mawlaaya alxaaji ibrahim bu maam xalifa ndeketoo seen ànd googa fekk mu nekk tuut tànk dafa nekk lu yàlla gërëm luy sax ba faw yàlla nañ bokk ñoom ñaar ñëpp dekke jaal jana ak mbooleem njaboot gi ak xarit yeeg soppe yeeg am di jàmm yi njaboot yiñ fi bàyyi yal na yàlla teg ci loxo xiir leen xaar leen lépp lu ñuy yóotu yàlla jotale leen ca bi barakati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama nasaxal pexeem yàqkat yëpp yu nit nas jëmee ko ca ñoom yal na ko yàlla nasaxal jël pexe yooya yëpp ko aji pexe ja na ko dan maam xalifa yi ñaanee ne ruddahu fi nahrihi wa bihi wa marma azhumi zamani kon ñaan googa yal na dal seeni njaboot yiñ bàyyi gannaaw yàlla mën na ko yal na ko yàlla def ci barkeeb an nidaau taasi wa thalaathuun muy xooteeb yàlla bi di fanweereeli xoote ak juróom-ñeent yàlla di ci xoo woy gëm ñi indi xoote bi ci suratul maida aya 94 lu mu wax dafa ne yaa ayuha alladina amanu la yabluwannakum allahu bi cheyin min assaydi tanaaluhu aydikum wa rimaaxukum li yaclama allahu man yaxaafahu bilxaybi fa man yactadee bada dalika fa lahu azabun alim maida 94 yàlla na yéen ñi gëm yàlla na leen leer naññi ne sama borom dana leen nattu lam leen di nattoo muy rab yoo xam ne dagan na ngeen lekk ko ci rëbbu waaye nag xaraamal na ko ngeen di ko rëbb di ko lekk kom yéen a ngi ci xurum bi ñaareel ba tamit yéen a ngi nekk ñu xarmal waaye bu taxutoo nag nekk gi nekk ci xurum beeg seen ak xarmal dana dagan ngeen man leen a rëbb dama leen i nattu nag dama ko xaramalee ci yéen ba pare dama yombal rabya ba bu ngeen jëlee seen loxo yi sax man leen a jàpp su ngeen jëlee seeni guntux yi man leen a jàpp man leen caaray lu ma ko def pour nattu leen yàlla dafa baaxoo bu bëggee xalak aw xeet dafay yombal lam leen tere ba pare jàllar bi ku bëril ko ci seeni bët ba pare tere leen ko li la yomb nga man koo jëfandikoo bu la ko yàlla teree rek nattu na la su boobaa nag ragal yàlla dëgg dëgg dëgg moo la ci mën a musal waaye yàlla tere la dara ba pare jafeel ko nga xuta xut ba sonn mu jafe la nga door a wax ne bàyyi naa ko déedéet kooku ñëpp a ko man naan katab sàngara nga yàlla tere la sàngara waaye bim la ko teree ba pare tamit sàngara soosa mënoo koo gis fenn ngir jafe gi nga ne ah man de bàyyi naa sàngara waaye bàyyi woo da xamut su boobaa loola ngóor a nekkut ci yàlla xaraamal ci yow njaalo pexe mu nekk nga def ko mënoo fexe ba am jigéen goo njaaloog nga ne man de bàyyi naa ko loola ngóor a nekkut ci danga amul pexe waaye tamit yàlla xaraamal ci yow xalal ju xaraam mënoo gis sax gis xalal far mu jafe la lool nga ne bàyyi naa ko taxul ñuy wax demeet yeneen yàlla xaraamal yëpp dugg ci ñett yooyu ma waxagum la mu des ca des yëpp waaye li ngóor a nekk mooy li la yàlla xaraamal mu yomb la boo toogee mu fekk si la boo maanaam boo doxee fekki ko noo ko bëggee rek mën nga ko koo amee waaye nga am ak ragal yàlla ne lii li ma yomb yomb taxaraam ma du ma ko jëfandikoo kooka mooy jàmbaar kooka mooy jullit bu ak njullitam wér kooka mooy ki sóoraale yàlla bàyyi ko xel ci léppam yàlla nag ñaareel bu bëggee alaw aw xeet dafa leen ni tere dara ba pare baril ko ci seeni bët su ñu amul sens rek jëfandikoo ko jaaree ci alku laaj ko yahood ya dëkkee woon xur wu ñuy tuddee ay lëttu yàlla terewoon leen ay mool lañ waaye bis yëpp jëndu am dimaas ak altineeg talaataak àllarba ba àjjuma duñ mën a am jën waaye nag bu samdee rek jën ya tuuru ca dëkk ba loo def am jën te ñoom dañoo réyoon làmmeñ sombi luñ mënta naan laaj ne yàlla kañ la commencé bind àdduna bi ñu ne dimanche kañ la pare ñu ne ajjuma ci la bind suñ maam aadama gannaaw bi mu bindee lépp gannaaw bim mu ko bindalee lépp mu door koo bind ne ko li ma la doon li ma doon bind yëpp yaa ko tax a jóg ñëwal nga jariñoo ko yow nag boo xamee fu la bu kenn taxu tax a jóg lu dul man mi la bind yow laa bindal géej yi ñëwal nga jariñoo ko yow laa bindal jiir yi yow laa bindal gàncax yi yow laa bindal jamaat yi yow laa bindal xayawaan yi lépp sotti nag yow nag ma door di la bind kaay nga jariñoo li ma la sottalal bind ko ci diggante tàkkusaan ak timis ca waxtu wu mujj wa waxtu woowa ci yàlla sottal ak bind roof xéewal mbooleem lum bind waxtu woowa la mbindeefam yépp dajee di toroxlu di ko ñaan teraanga xéewal gim def ci ñoom buñ ko ñàkkati yàlla nag jël waxtu woowa def ko muy waxtu nangu ñaan ci àjjuma la nekk danay toxalu nag ah, ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waxtu nangu ñaan woowa dafa nekkoon ci heure bi yonent bi di xutba pour ñu taxawal julli juma gi moo tax bu xutbaan ba ca digg ba rek mu poos ñaan ci ñaari diggante yooya ba pare doora a continuer xutba mu jigi bi Seydunaa Osmaan ñëwee heure ba dafa toxalu léegi-léegi dana toxalu juróom benn weer door a ñëwaat juróom benn weer Cheikh na Tijaani ne maa topp tànk ya toxalu na waaye léegi yaa ngi koy fekk ca diggante tàkkusaan ak timis moo tax waxtu woowa ma sant samay taalibe nañ dajee di tudd yàlla rek bu ñu fa nekk ñaan ndax booy ñaan man ngaa ñaan li nga bëgg mais xamuloo li nga bëgg moo gën ci yowam déet yow nag boo dumooyoo ñaan tey tudd yàlla nga dugg ca la yàlla wax ci hadisul qudsi yu ba ne sama jaam bi su fekkee tudduma da koo soxlaal ba ñaanut ma danaa ko defal jox ko lu gën la may jox ñamay ñaan man shagalahu dikri an masalati ataytuhu afdala ma uti saailin loolu mooy secret xadaratul juma bu ñu jullee tàkkusaan daal li teree jant bi so des ñaari waxtu cheikh na tijaani ne na taalibe yëpp daje di tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla ba jant bi so mu dugalaale waxtu nangu ñaan woowa su boobaa yàlla defal leen lu gën la nga li nga ki nga xam ne dafa tàllaloon loxoom di ñaan mu ne boo tardé ba tardé bu desee une heure de temps muy benn waxtu nekk leen ciy tudd yàlla tudd leen yàlla ba jant bi so su ko defee nag foofa comme mbooloo ngeen bu leen neexee amul lim nekk leen ca jant bi so léeg-léeg dana dagan ci mbooloo tamit ñu def lim xool heure boo xam ne buñ ko tàmbalee bu jant bi so rek dana fekk ñi am mille six cent laa ilaha illallah bu ko defee ñi tëj mu jeex jant bi so ñun ñi julli loola lépp nag mooy sekkareeb xadratul jumaa mais jafe na léegi waxuma ne kenn defatu ko ci réew mi waaye nag mën naa dogu na ñëpp defatuñ ko lu ko waral ñu ci bëri soxla ya la ñuy ne nekk ca marché ya nekk ci seen soxla yi nga xam ne du jeex mukk soxlaay dafa góoma ak defaata góoma rek ba mu des dix minutes mbaa cinq minutes nga ne taxawal ma dem ci xadara ba commencé wax laay laay la laa ba ngay am ak cent deux cent trois cent ñu ne maanaam tëj nañ xadara xuloo seex dafa ne bu desee ñaari waxtu la bëgg soo xatee ba xat bu desee waxtu nga nekk ca ba jant bi so jamono jii nag ñii toog bu desee ñaari waxtu ba jant bi so waxuma ne xamut waaye néew na wala ñii toog bu desee waxtu ba jant bi so nga nga de nga door koo def waxuma ne xamut ndax déew ma fépp waaye mën naa dogu ne nag néew na moom kay da ngay toog ba mu des waxtu nga bëgg caa dugal wasifa wa ray temps ba bala ngaa jeex ak trente minutes dem mu des ay trente wala mu des maanaam vingt minutes nga ne nañ ca dara matut Euh, loolu nañ ci bàyyi xel soxla ya àdduna bi du bat mukk ba yowmal qiyaam ndax dafay daw ci diggante dafa góoma rek ak defaata góoma ku dee baxi mbébét te ku bëgg a jël sa mbubbam diine di ko daaxee sa mbubbam àdduna sa mbubam diine mi yàqu te sa mbubam àdduna mi du jag mukk ku dee baxi fi ay procès yu dul jeex kon nag sa premier procès bi gën a màgg def ko muy jaamu sa borom lim la digal lépp nga góorgóorlu ca lang ca man lam la tere lépp nga góorgóorlu ba bàyyi ko képp ku yàlla may sens bi kooka mooy ki texe su ko defee ñoo ngeen nag somboon luñ mënta naan laaj na yàlla kon ban bis la noppalu ci waxin bindul dara ñoo ko wax ñoom ngira ak ñàkk yar ñu ne samedi yàlla bindul dara ndax àjjuma la lépp pare ba mu paree nag ci diggante saan ak timis ñooñu lim bindoon lépp tàllal ko ay loxo ne ko yow yàlla nga ji nga defal ñu yàlla buñ ko ñàkkati waxtu woo ñu doon nangu di ñaan nag moom la yàlla roof muy waxtu nangu ñaan ci àjjuma waaye day toxalu cheikh ne topp naa tànk ya ba actuellement mi ngi ci gannaaw biñ julee tàkkusaan li bu teree jant bi so ñaari waxtu ba bay jant bi di soxee foofa daal foo fa duggee la yaa ngi ci biir waxtu yi boo tardee ba tardé lu ko doree waxtu ba fa fa jant bi di soxee yaa ngi ci biir loolu la bëgg nga def ko nga yow na mën a demal tudd yàlla rek bu fa def dara su boobaa yàlla dana la jox lu gën la muy jox ña ko doon ñaan tudd yàlla nag jàngal Alquran na nga ca mooy cosaanam heure boobu bu jotoon nga téye sab kaamil di jàng ba jant bi soo yaa ngi ca biir heure boobu boo ca nekkoon defi istighfar di def salaatu ala nabi di bàkk yàlla di sabbal ba jant bi so yaa ngi ca biir su ko defee nag ñoom ñu ne kon ñun de nax nu abnaa ulaahi wa ahibaawu dañoo mel ni doom ci yàlla di ay soppeem kon nag ñun dootuñ liggéeyati samedi mooy suñu feet fi la di dooree ba léegi duñ liggéey samedi muy seen feet nasaraan yi jël dimanche muy seen feet ndax seen maa maidatu bi doon yonentu yàlla Isa di ñaan ci rabbana ansil alayna na mina bi bisab dimanche la wàccoon yonantu bi ñëw yàlla jox ko ajjuma muy feetu jullit ñi daana toog ba ci kanam muy sant yàlla ne ñoo mujj ñoo njëkk ñoo mujj yahood ñoo mujj nasaraan yi waaye ñoo leen njëkk ci feet suñ feet jiitu seen ñaari feet ya ndax ajjuma moo jiitu samdi ajjuma moo jiitu dimanche kon ñun ñooy feetu ajjuma ñun jullit ñi ba pare yahood yi door feetu seen samedi ja nasaraan yi door a feetu seen dimanche ja kon ñoo njëkk ñoo mujj lii lañu yàlla defal ci barkeb sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñoom nag yàlla nattu leen bañ sombee luñ mënta naan bis yëpp jën day am dimanche ba alxemes jën du am waaye nag bu samedi jotee rek jën ya bëri ndeke yàlla leen bëgg a xalak mooy li ma la wax di bu bëggee xalak aw xeet dafa leen i tere dara ba pare lam leen tere mu bëril ko ci seeni bët ba duñ ca duñ ca mën a mucc lu dul ndimbalal yàlla moom daal bu samdi jotee rek jën ya tuuru ca dëkk ba tefes yaak ñëpp dëkk ba def ñetti xaaj benn xaaj ba gas ay kaaw foo dem ci dëkk ba ñi ko gasi pax jën ya dugg ca bisab samedi bu ñu xëyee dimaas ñu door koo rëbb benn xaaj ba tere leen ne leen lii ngeen di def suñ borom tere nañu ko bu ko bàyyiwut da ngeen xal ko ñu ne déedéet rëbbu samedi la ñu tere waaye terewut ñu fexeel jën samedi ñun dañoo fexeel jën yi samedi bañ dugg ci biir kaaw yi ñi baleen fa ak ndox ma suñu xëyee dimanche door leen rëbb kon li ñuy def nii dara newu ci ñooña nag doon def loola ña leen tere ñoom bañ leen teree ba pare dañoo tuxu génn dëkk ba baneen kaaj ba di ñetteel ba ne ñun dee génnuñu tuxuwuñ waaye fexe luñ jën rëbbuñ waaye ku rëbbu nag soo ñu mayee mu caat ñi xewlu ca aa ah, bañ ko defee nag di asxaabu ay la yàlla dogal daal décret ba wàcc ñi xëy soppi leen ni golo soppi ni ay mbaam xuux ñi nekk ca ñetti fan door dee ñi nga xam ne dañoo tuxu woon ngir bañ jëf ju bon ji yàlla ne musal naa leen ñoom mucc nañ ñi nga xam ne ñoo doon rëbb tabaarakallaahu jën yaag pexeel ga ñu soppi leen golo ak i mbaam xuux ñi nga xam ne nag dañoo noppi woon ñoom de rëbbuñu waaye terewuñ kuy rëbb ku leen may muccaat ñi lekk yàlla noppi ca ñoom ñu ne noppi nga tekki lu dul rek xalag leen ndax fu ñuy defee lu bon nga mën a wax boo waxee mu ñi bàyyi ko wala nga am kartan man ko faa dindi wala boo ko mënut nga méttalu ci sa xol ñetti yi yëpp boo ko boo ca mënta defoo ko bu mbugal may wàcc rek yak ñàkk ña ngi ko séq ak yéen a koy bokk doo ca mën a mucc la jibril ba ko suñ borom digalee ne ko dëkk sàngam demal nga xal xalagal ma leen mu ne ko xam na fa sab jaam bu baax bu yiw bu sell yàlla ne ko booy de booy xalak tàmbaleexal ci moom ndax ñi ngi def lu bon ci sama pénc mi mu gis ko waxut ca kon nag njëkkeexal sa euh, maanaam mbugal mi ca moom kon bu lu bon nekkatee ci pénc yaa ngi koy dégg ndeysaan fan yi rek góor jigéen ñi amuñ dara lu ñuy def lu dul na ñu sëy fu ñuy sëyee ñu ne ca grande mosquée lañ leen jàppee xam nga loola ñaaw na loolu loolu loolu loolu xaraam na ilimaan yépp a ci war a wax ñi yàlla may doole dénk leen nguur ñu yore état bi nañ jëflanteeg ñoom bañ xam ne lii métti na leen amul fenn place yi gën a sell ci dëkk dëkk yàlla bi yàlla ne dëkk bi jël leen maa ko moom mais moomoowuma ko jël leen seeni kër ñun ñëpp ñu dogoo kër yi ko wax ne ko waaw fii mu ne sama kër baay fi sama tooli papa fii sama nangam benn rek laa ci moom moomoo ko mooy jàkka yi wa anal masajida lillah li ci des yëpp li naasi la jël leen yéen xamu leen dara lu ngeen def ci mbon nekk góor jigéen rek doy na bon lu uxuma la amuloo fooy defee sa mbon nga lu dul ci jàkkaay yàlla ji xam nga ne loola xaraam na loolu bon na loolu ñaaw na ba jéggi dayo su boobaa kon nag yow yàlla ñi ngi koy ñaawlu te di ko métit lu doonte xamuñu dooleey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 naan nit ñu ñuul ñi ñu ngi soqeekoo ca golo yooyu ñu soppi woon wax ju bon la ju ñaaw joo xam ne waxi kàcc la ndax su fekkoon ne nit ñi ñu ngi soqeekoo ca golo yooya kon léeg-léeg da nga gis nit ku tilim ku salte ku bàyyi ni ko ku yaafus ba xëy di golo wala nga gis golo gu silwiise ba xëy di nit waaye kenn mosta gis golo gu nekk nit kenn mosta gis tamit nit ku nekk golo kon ñooñu ñetti fan lañ dund rek dee ndax yàlla saa yu masaxee aw xeet wala mu jël jëmmu am lum ko masax dundam mënul passé ñetti fan bu ca gee rek dee bu ca yeggee dee moo tax fuqaaw yi di jamee koo xam ne dañoo dafa yoroon jëkkër jëkkër ja jékki-jékki ñu soppi ko jamaat mooy lu amul roox ñu koy soppi ko montagne wala ñu soppi ko fer wala ñu soppi ko bâtiment ca saasa rek mën naa commencé tënj ñu ne nag su fekkee dafa ko soppi xayawaan mën naa xaar mu ñëndiku ñetti fan su ko defee nag bu del si xaatut ca lam doonoon rek ca lay liggéey ba door di commencé ndax képp kuñ masax ci loo toon mënul passé ñetti fan soo del si xaatut rek da ngay mujj dee waaye naan nit ñu ñuul ñi ca golo yooyu lañ bàyyee koo wax ju xamadi la wax ju ñaaw ju bona bona bona bon la kenn waru ko wax kon nag yàlla ngoog ñooñ lay wax ne wasalhum anil qaryati allati kaanat xaadirata albahri id yacduuna fi sabti id taatihim xiitaanuhum yowma sabtihim suraan wa yowma laa yasbituuna laa taatihim lu tax yàlla mu ne kadalika nabluhum bi ma kaanu yafsuquuna al araaf soixante trois boo demee fekk ko ca kon nag li daloon asxaabul ayla moo dal xeetu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla tere leen dara ba pare bëri ko seeni bët ñii tere na leen rëbbu ay mool lañ tere na leen gëti bisab samedi te baril jën ya ci bisu samdi ba ragal yàlla dëgg ak kaaraange moo leen ca mën a musal saxabaay yonent bi yàlla tere leen rëbb buñ xasee xarmal nekk ca xarum ja wala ñi xarmal ñi rëbb rab woy ko jug jéeri ba pare nag bëril rab ya lool ba ñuy naaw di leen tiim ba boo laalee man leen a laal te xam nga bakkan dafa bëgg rab wu bees woo xam ne da nga koo rëbbi léegi rendi ko léegi togg ko léegi xeeti lekk yépp bakkan boobu la ca gën a xemeem moo tax yonentu yàlla ibrahima bi mu amee ganam ya mu foogoo ne ay nit lañ ba ñu ñëwee sol jëmmi nit ndeke ay malaaka lañ mu rëbbali leen aw yëkk jaadar bi ku ñëw rendi ko wàjj ko teg ko ci seen kanam moom nga dégg alquran ne fama labitha an jaa bi ajlin xaniithin suratu Huud aya 69 boo demee fekk ko ca xaniis nag mooy lu ñu wàjji lakk ko ba mu ñëwee gaay ak tiim munuñoo lekk malaaka du lekk du lekk du naan kenn ku nekk naan lii moon leen gannaaw ndax ku am teraanga ci gan dëgg-dëgg li boo leen tegalee teraanga yi rek wan leen gannaaw waaye boo fa nekkee di lekkandoor ak ñoom mën nañ laa ruus rawatina buy gani si siis yi nga xam ne seen xol ak seen xel ak seen xam-xam dafa màcc jëm ci lekk wan leen gannaaw ba ci kanam nga ñëw ba mu ñëwee nag fekkul dara soppeeku mu ne leen waaw yéen ana lan moo leen teree lekk ca la ko jibril ne ko ma gis la ñun dee ay malaaka lañ malaaka nag yaa ma gën a xam ne du lekk du naan ay missionnaire lañ suñ borom moo ñu yónni woon ñu ñëw bégal la ne da am doom ju góor balaa yàgg ci sa soxna si nga yaakaaroon dootul amati doom ñaareel bi ñi ngi jëm ci sa mbokk ma sa doomi mbokk ma muy luut ñi ngi lay xamal ne dañ ko war a alagi mu nekk fa di négocier euh, naan ba leen inna fiha luut ñu ne ko ñoo la gën a xam ña fa nekk waaye lu ca mën a am daal euh, moom luut dana mucc ak doomam ya ya gëmoon ña des ñëpp dañ leen alak lu ko yóbbu woon ay góor jigéen lañ te ñoo nge seen mbon nga sax xéggutoon ci ñemee sëy te jàkka ya kon yow nag ngay góor jigéen xemoo ci mbon nga nga ne maa ngi koy defee ca jàkka ja grande mosquée ba dëgg dëgg fa mbon xem bu la yàlla ruseexutoon yonantu bi foofa rek lay xar suuf rek dugal la ci ngeen dee xem foofa mu nekk seen bàmmeel waaye yàlla waxoon yonantu bi ne ko façon mbugal yi ma doon mbugalee xeet ya leen jiitu woon du ma ko mbugalee sa xeet wii muy mbugal boo xam ne yar la bu ñëwee day maasala ki seen kaw ñoom ñëpp ñu deyandoor du ko def ngir xormal la du ko def ngir fonk la du ko def timit ndax yow yaay sama lépp sallallahu alayhi wa kon mbir yaa ngoog yàlla tere leen rëbbu ba pare baril ko ci seeni bët mi ngi mel ni tabaarakallaahu armeeb taaluuta ba ba muy war a xeex ak tere na leen ndox ba pare baril ndox ma ci seen kanam foofa ñu ca bari naan ñu néew a néew maanaam ñoo ca mucc comme ni nga ko jàngee ci suratu baqara loolu tamit moo ñu dal ci jamono ji li yàlla xaraamaloon lépp bu njëkk ba dafa jafewoon pour nga mën caa hegg tey nag li yàlla xaraamal yëpp fa yomb yàlla ngi xaraamal sàngara sàngara bari ci suñu réew mi ak réewu jullit yi bañ koy def ci ay sachet di ko jaay ay xale yu ndaw nekk ci école yi di ko jënd comme ni ñuy jëndee mbuusi ndox yi xam nga nekkoon foofa bu jamono yeggee foofa yàlla namu nañoo xalak moo la tere sàngara ba pare jàllal bi ko yombal ko loo ca man mi ngi nii tere ñu cigarette ci tuux ko ci tuuxlu ko ci jaay ko bitig boo dem wala li ëpp ci bitik yi boo demee ñu jaay la cigarette comme niñ lay jaayee tàngal kon tere nañu ko bëril ko ci suñuy bët mu jàllar bi ko tere ñu njaalo te ku ne yëg na ne jamono ji ni njaalo yombee bokkutoo nag ni mu yombee woon ci bu njëkk ba fi nga toog man ngaa toog ki nga bëgg a am ak contact nga am ak moom bu la neexee sax nga nekk nit ku bon moom muy mujj fekk la mbaa ngeen dagee ca oversia xam nga loola mbon mënu koo paase yàlla tamit tere ñu fen nattuñu tamit fen bëri ndax fenkat buñ bëri rek fen bari ba tax na kàcci ñu néew a ci mucc tabaarakallaahu ñu yàlla baaxe rek ñoo mucc ci jamono ji ci kàcc waaye di kàcc ci réseaux sociaux yi di kàccal mag ñu baax ñi léeg-léeg nga dégg ci ay ilimaan yu bon yu xees yu perdi di kàccal mag ñu baax ñi di leen jéem a sosol ki seeni way xam nga ne loola mbon munu koo paase tabaarakallaahu di ca wax wax yoo xam ne yow mi koy wax yënga ne ngay kàcc di jël wayu mel ni wayu maam xalifa ya góor ak yàlla gu tedd googa nga xam ne mbindam ma ronkañu gaynde la tabaarakallaahu waaye mbindam ma mbindam or la keroog ba mu juddoo yàlla baaxe ko yonentu bi taf ko ci dënnam bu sell ba jël làmmiñam wu sell wa sexal ko ko ci la ne ci laa déggee arab arabiya ba tax na moom ak olof xawma lu ma ci njëkk a dégg kooka nag xam nga ne mbindam ku ko mën a liir da cay dollee ko mais doo ca am loo cay dolli bu nit kàccee ne am na ku ca dolli lii xam nga ne kooka kàcc mënu koo passé waaye kàcc yëpp bi ci gën a bon mooy kàcc goo xam ne yow mi koy wax waroon da ngay kàcc ñi lay déglu bu ñuy say doom sax xam ne da ngay kàcc loolu moo gën a xiis ci xeeti kàcc yi tax boo bëggee xam kàcc kat dëgg dëgg danga koy laaj ci li nga xam rek ba pare déglu ko kon mag ñu baax ñooñu mel ni góor ak yàlla ga maam xalifa ay wayam lu ca nit mën a wax rek duñ la mën a jàppe dul ngay ab kàccikat wayu ko mel ni xaadimu rasul si ahmad bamba bolom xalimbaak or gu rafet googa timit ay wayam ku cay jéem a ne maa nga cay jéem a kuriseeg maa ngi cay def nangam duñ la jàppe lu dul ngay ab kàccikat naka noonu seydil haaji malik borom xilaasu zahab naka noonu cheikh al islam haaji ibrahim tabarakallahu borom nuuru basar naka noonu Mawlaaya Xaaji Omar Ndaw borom yaquutu yawaaqiit téeréem bu foor boobu Mawlaaya Xaaji Ahmadu Dem borom diyaa u néeréy ni nga xam ne ñii ak ñu mel ni ñoom liñ liggéey lu loo mën a teg loxo la nga mën koo teg xool ko carrément man cee teg sa loxo muy lu wér lu sell lu baax lu nit mën a dollee ko waaye nekkut lu nit mën a dolli waaye nit léeg-léeg dana perdi fu ne nga nga nga demoon fa boo sa waxi sa daaw yeeg sa waxi red yi kenn mënu ko compa comparé ndax lu jug rek nga nekk ca ndax dafay am ñu perdi ñoo xam ne liñ leen di defee du dara lu dul euh, maanaam dañoo bëgg a wax ne daal maa ngi fi waaye lu ngeen bëgg ci kàcc rek maa leen koy defal kooku nag boo ca xeegee rek perte nga su ko defee nag euh, loolu yal na yàlla musal ñu ci moo tax kon yàlla bu namee ala aw xeet dafa leen di tere kàcc ba pare bëril ko ndax bu demee ba ay borom yi dara ja di kàcc su boobaa xam nga ne kàcc dëgg-dëgg bëri na bëri na bari bëri goo xam ne mucc ca dana jafe. wax di sànni bari ba damay wax ne jamono ji wax ji ñuy wax di ko sànni ko ko sànni woon ba bës mooy ëpp mbalit ma. kon nag nañ ci bàyyi xel te rafetal xool yi nangu cëri yu baax yàlla may mag ñu baax ñi bu ko yàlla kañee sa maam nangu ko. bu ko yàlla xeñee sa baay nangu ko bu ko yàlla xeñee nangu ko yàllaa yore ngëneelam di ko joxe te moo koy jox ku ko neex aa qul ina alfadla bi yadillahi yutihi man yashaau wallahu dul fadlil azim kon nag nañ ko nangu bu baax a baax a baax kon yàlla tere nañu ñu rëbbu bu ñu xarmalee bam leen ko tere ba pare balil rabya mu ngi leen i tiim tabaarakallahu ba boo laalee jot boo yëkkatee sa xeej bi tamit mën a jot loolu lépp fekk rek loolu la yàlla nag boo gisee mu teree rëbb ca xurum ja dafa bëgg a saxal sécurité gi ca dëkk ba boo demee yonent bi moo piqueté woon ñeenti côté yëpp foo ca dem ñi wan la ne la fii la xemoon fii la xurum ji dooree fii la xem su ko defee nag dafa bëgg ni fa nit ña fa nekk amee sécurité noonu la bëggee rab ya fa nekk tamit amee ko sécurité mu tere dagg gàncax ya mu bëgg gàncax ya tamit amee ko sécurité moo tax kon ataamahum min juin wa amanahum min xawfin jooja ca nit ca nit ña waaye yàlla ne xemut ci yéen rek de loola dama ko ràcc yaatal ko ba mu yegg tabaarakallaahu ci maanaam xayawaan yi ma racc ko yaatal ko ba mu yegg tamit ci nabaat yi kon loolu la yàlla defal màkka di dëkk bu sel di dëkk bu tedd di dëkk boo xam ne bu màgg a màgg màgg la boo demee ca kaaba gu tedd googaak la ko wër muy ca xurum ja benn rakka boo julli yàlla fayal ak ko téeméeri junney rakka su ko defee kon nag foofa ku fa xas yegg xam nga ngëneel lo xam ne lu rëy rëy la am nga ngëneel la loo xam ne lu màgg a màgg la am nga ngëneel loo xam ne lu foor a la su ko defee kon nag yaa ayyuha yaa ayyuha ji mi ngi noonu nekk ci maïda nekk fanweer ak juróom-ñeent moom laala doon firil bu ñu fi yàlla bàyyee suba ci kartanam ma dugg ak yow ci ñeen fukkeeli yaa ayuha yàlla di ca wax mook biñ génnee soreewuñu yaa ayuha alladina amanu laa taqtulu sayda wa antum xurumun wa man qatalahu minkum mutaammidan fa jasaun misla ma qatala min an naami yaxkumu bihi zaway adlin minkum ñuy jàng fa jasaun mislu ma qatala bi ma min an naami yaxkumu bihi zaway adlin minkum hadiyan baalixal kaabati kon fii dafay indi xukumu bi muy xatte bi ku rey rab fekk yaa ngi xar mal lan mooy sa xatte fële wax na tere gi rek waaye waxutoon ku ko def fekk yaa ngi xar mal luy sa xatte boo ma toppee suba nag atte bi mooy nekk suñu premier darsu ci kartanal yàlla nekk ci maayida aaya quatre-vingt-quinze suba ci waxtu wi insha allahu in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billahi alayhi tawakkaltu lay unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw bi nga seetaane vidéo ba pare fekkee abonné ko na nga abonné te bës tous cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga mën di jot notification